salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañ koy door rek transfert ak gardien wu Real Madrid bi ñuy wax André Lonin ñi nga xam ne kat jege na lool ngir signé foofu la Chelsea football club mi transfert bu kenn xaarul woon André Lonin bi nga xam ne gis nañu ne daaw moo sauvé Real Madrid gannaaw bi kii di Courtois amee blessure ñu àbb ki nga xam ne mooy Kepa waaye daal ñu gis ne mel na ni indiwaalewul forme foofu la ki nga xam ne nag moom la wax André Lonin daal di jël kang yi noppi di toog di seetaan lii bokk na ci li waral ba fii ñu waxee déggagul déggoo amagul seen diggante ak Real Madrid tey ji nag xibaar bi ñu am mooy Chelsea football club mu ci kaw maanaam mu ngi waxtaan ak moom te nag waxtaan bu sori la jamono bi ngir mu war a signé ki nga xam ne mooy André Lonin bile ñu fàttali leen Kepa bi nga xam ne nag moom itam Chelsea dañ ko able woon foofu la ca Real Madrid te mu war a dellu jëlee nañu ci taskatu xibaar bi nga xam ne mooy Fabrizio Romano di xam la ne kat jamono moom it mu ci waxtaan digganteem ak Real ndax moom supporter foofu la ci Arabie Saoudite équipe bu mel ni Al Ittihad bëggoon na signé waaye nag moom dafa ne dafay xaar ñii di waa Real Madrid loolu dem jàngat nañ ko ci taskatu xibaar bi kon mu mel ni ñaari transfert yëpp mën na sotti ki nga xam ne moom la wax Kepa Arrizabalaga mën na des Espagne gëmu dëkk ak équipe bi de Real Madrid waaye itam kii di André Lunin signé ca Chelsea Football Club loolu yëpp lu mën a nekk la dinañu wéy di siifur mbir moomu Olympique Marseille nag seen milieu terrain bi ñuy wax Azzedine Ounahi moom jàpp nañu dana jógee ca club boobule ndax kat ki nga xamante ne moom wax désert bi nee na compté wul ci moom moo tax fi ne kat ñu koy pousse ngir mu génn club boobule ñu ngi xam ne nag am na club bu koy topp ca Qatar mooy club bi ñuy wax Al Sadd bëgg na ko signé voilà moom kii di Onahi bi nga xam ne militaire la boo xam ne sax xëy na yàggul trop ci équipe boobu gannaaw coupe du monde bi la signé foofu la ci Olympique Marseille ñu gis na mu doon def jaloor yu am solo donte ne léeg-léeg ay blessure gàllankoor ko waaye jàpp nañu ne daal amaana dina génn équipe boobu ndax ki nga xam ne mooy coach bu yees bi kontewul ngi jàpp ne amaana moo daal di jógee foofu lay mën nañ ko appelé xam ne rek pare na ngir dégg maam li nga xam ne mooy salaire am wala su boobaa ñoom dinañ ko appelé maanaam bépp club boo xam ne daal bëgg na ko fi mu leer ne li nga xam ne mooy soixante-dix mille de livres sterling yi nga xam ne moo koy fayee ko semaine bu jot yaa koy fay loolu moom suñ ko gisee rek ñoom dinañu bàyyi ki nga xamante ne moom la di koy able ki nga xam ne nag mooy Sergio Roberto di capitaine FC Barcelone moom dal dinay décider ngir génn équipe boobu di Barcelone gannaaw bi mu xaaree nee na ba sonn fi ne nii wóoru ndax dina jeexoon na waaye xëy na ñu ngi doon xaar ñu jox ko contrat bu yees ndax xëy na équipe bi mu ngi ko doon xaarloo ndax saa bi yéen mu dal di fay des am nañu nag coach bu yees waaye booba léegi mel na ni amagul dara lu bees ci mbir moomu moo tax moom takk nay bagage am ne dafay dem ancien attaquant bu Barcelone bi nga xam ne moom la ñuy moom dafa dal di ndénga dem foofu la ci Olympiakos jógee ci Espagnol bi nga xam ne xeex la na ba ñu monté waat ci première koo dénga maam bàyyi mu dal di dem ca Olympiakos nee nañu nag agent libre la ndax loolu la déggoon ne daal dénga maam saison bi jeex na bu amee équipe bu ko bëgg ñoom dañ koy bàyyi gratuitement mu dal dem loolu waral na ba jamono bi mu war a foofu la ca Grèce ak équipe bii di Olympiakos bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi nee nañu nag amal li nga xam ne mooy visite médicale am ba noppi li des rek mooy mu dal di signé li nga xamante ne mooy contrat bi moom kii di Martin Braithwaite Ngolo moom ñii di West Ham United ñoo ko bëgg signé West Ham United daal ñoo bëgg lu baax Ngolo bi nga xam ne ci top forme la nekk ndax gis nañu li mu jot ko bëgg la ca Angleterre mu loo xam ne nag nga xam ne ne Al Ittihad jàppale ko ki nga xam ne mooy Ngolo Kanté bu am solo la ci seen équipe boobu te gis nañu ñu ngi signé di indi ay renfort moo tax mbir moomu xëy na du yomb ci ñoom waaye daal West jamono bi ñu ngi ciy ñoom itam ngir xool naka la def ba dal di koy indi foofule ki nga xamante ne moom la wax Koeman muy Ronald Koeman bi nga xam ne moom ba mu delluwaat ci Barcelone waaye nag nee loolu buy am itam na fekk ne du président bii nga xam ne xamante ne mooy Xavi Hernandez moom itam naka noonu mu gis na daal ki nga xamante ne mooy Laporta respecté li nga xamante ne moom ancien joueur équipe ci jamono bañ ràññee woon ko Football Club la bi nga xam ab français la ñu gis nag dañ ko boole woon ci joueur yi nga ñir France dañ leen dégg maam tegoon ca wet ga voilà ngir dégg maam dal di leen yóbbu ci lii olympique bi voilà muy jeux olympiques yooyu nga xam ne jamono bi war nañ caa dem gannaaw bi ñu publier seen liste mu amoon ay joueurs yoo xamante maam dañ leen tegoon ci wet ga maanaam daal def lu ñuy tuddee réservé bu fekkente ne am ci kenn koo xam ne blessé na wala mu am ñu dal di koy bokkatu ci ndax Chelsea football club ci France ngir ñu bàyyi ko mu dem dañ ko soxla moo nekkatul la ci France maanaam di waajal li nga xamante ne mooy olympique bi maanaam ci li nga xam ne mooy regroupement yi ndax di entraîner te wóoru ndax danañ la jël am déet loolu yëpp nekk mbir yoo xam ne fi ne mel wàcc na ko ndax Chelsea ñoom li ñu sàkku mooy ñu daal koy libéré mu daal dellu ci li nga xam ne mooy pré-saison yi te loolu nag nee nañu jamono bi am nañ ci moom kii di Ugo Chukwu dafay dem foofu li nga xam ne mooy ca Chelsea ngir waajal li nga xam ne mooy pré-saison yi lée balaa ñuy dugg ci li nga